ñoom suñu existence moo leen deexut te ñoom ñoo ñu jur ñoo ñu nàmpal Canal Horizon léegi nag nee nañ ñun bu ñu màgg nañ dee du ñu dee nag dañuy dund quand quand je dis lu tax moo ñu jur les premier cablo du Sénégal ci canal lañ doon purgé di joxe canal su la ñëwee yëg ni def nga benn réseau câblé ñu ñëw ni la ah comme def nga réseau câblé suñ la jàppee nangu say bagage dootoo liggéey te doo am loo ñu jox léegi xam lu ñu def chaque mois da ngay ñëw di ñu jox dara canal horizon laa wax de man musaa Diop maa ko wax léegi soo ñëwee jox leen dara ñun la léegi cinq cent mille francs nga ñuy jox mais chaque mois dangay ñëw di ko verser ba mu mat soo ñëwee dañ lay bindal facture de piratage yéen ngi dégg li may wax facture de piratage document bi am nañ ko ñun la demal mois prochain nga ñëwaat joxe cent mille ñu bindal la cent mille mode d'abonnement facture de piratage kon ku jur ku jur câble yi canal ku jur pirate yi canal câble câble yi nag ba ñu demee ba yeewu ba xam ni ndeke mën nañoo am image fereen fu dul canal xam nañu source bi ñu bàyyi fi image yu canal dem di jëndi foofu moom fa muy jënde ñu ni nag déedéet continuer leen ñëw ci ñun ñi di leen rey wala doo leen dund c'est ça qui se passe mën nañ leen a won facture de piratage kanaal Horizon moo ñu ko doon jox ñoom ñoo ñooy piraat yi mag yi waaw ñëw rek gars yi daw libéré leen itinéraire technique bi tey nag ba ñu ñëwee dañ leen wax ne doo leen fi dugg te huissier bi ñëwut benn ñaar da ngeen ñu wax yéen lan ngeen fi wut lan moo leen tax ñëw fii ñu ni ñoom dañu ñëw pour voir des euh, images la ñu leen qu'est-ce que vous appelez image frauduleuse da ngeen ñëw pour regarder vos produits oui ou non ñu ni wéy lañu ñëw xool seen produit ngeen d'accord léegi nag dañuy def règle de jeu dañuy xam kan kan mooy dugg parce que bu leen bàyyi yéen ñëpp ngeen dugg Saint-Louis ni ngeen fa def doo leen ko def fii Saint-Louis da dugg introduire ay carte foofu dugal ko sa sànni ko ci biir pour mën a le réseau bi yéen ku fii dugg dañ lay fuyee xam nañ ñu ñun dofuñu fii Thiès la dañ leen di fuyee. soo leen nanguwul ñu fuyee leen doo leen dugg ci suñu unité mu jigi gendarme yi ñoo porté garant que ni ñoom danañu veiller sur ça que les gendarmes que nous vraiment tey wane nañ ni ñoom ils sont été vraiment à la hauteur parce que wane nañ ni ñoom nekkuñu fi pour pour Massamba wala pour ma demba waaw ñu dugg def li ñuy def ñu may leen ñu zappe télé bi xool gisuñu seen produit on les a dit dégager ñu dégager huissier yi constaté na seen entrée dans notre unité bu site sen Senghor bi ci lañ demoon donc euh, huissier constaté na ko aussi danañ continuer suñu procédure canal danañu demoon ak moom procès ñun waa Thiès dañuy porter plainte canal parce que ba mu fi mujjee sax daa sàccoon ñu fi ñëwoon noonu dañoo sàccoon suñuy bagage yóbbaale ko dañ leen di poursuivre pour ça sont des voleurs c'est moi qui l'ai dit ici à officiellement mais officieusement 53 euh, parce que euh, ñun euh, dañu am benn société bu tudd Sortec moo ñu agréé ñi am agrément à Thiès c'est 42 mais il y a propre boo xam ne kenn amu ko fi et eh, nos amis théâtre yi ñun lañuy liggéeya liggéeyal ñun la ñuy ñëw di ñu jox seeni produit di ñu jafal euh, autorisation de division kanaal boobu ñuy teg suñu théâtre ñun rek ñoo ko am Sénégal amul ci beneen bouquet loolu suñuy produit la suñu continue la te lu ñu neex jàllale ci mooy vidéo à la demande boobu par contre ñoom suñu demee ci yeneen télévision yi télévision yi dañ leen wax ni ngeen baal ma nag yenn patron de presse yi dañ leen di wax dañ leen di may temps de publicité après ñu teg théâtre bi ñun nag da ngay ñëw ñu fay la xobbet xobbet nga dem waaw walla nga déposé fi théâtre bi le premier le quinze nga jaar ñu wàññi sa xaalis nga dem moo tax théâtre boo gis ci Sénégal su fekkee ni am nga temps wu liir euh, bind yee say topp ñu ngi naan ñi ngi gërëm Moussa Diop ca Thiès ñu ngi gërëm Tidiane Ly ca Thiès Maam Góor suñu waay la euh, Kara ca Kaolack ñu ngi koy gërëm ñu ngi gërëm kaablo yi loolu sunu suñu produit la donc ñun amuñu problème continue ñun benn problème la ñuy am mooy canal bu comploté suñu kaw je ne sais pas au nom de quoi bay ñëw Sénégal di mobiliser suñuy gendarme ak suñuy police pour di toujours di dal suñu kaw loolu daal lañ xamul pour lan la ci loo leen moomut waaye ñun ñi ko moom nag ah te bés bu ñëpp waree dee ku dund rek gore woo